toog di doxal di doxal baat boobu moo gëm sa bopp ñoo yem mhm. na tëmb léegi ma ñëw ci sëñ biram daa wax fu mu fu waxam jotut parce que damaa jàpp ne dafa am fu ñu ko dénk muy ministère bi gën a Sénégal gën a yaakaare mhm. koom muy ci pétrole ak gaz ak yu demee noonu mhm. suñ borom jox la nga doon technicien suñ borom mayu la nga am kàddu gu neex suñ borom mayu la tamit nga mën di exprimer wu comme il faut mm-hmm. bon micro du orateur mm-hmm. xam nga débatteur ak orateur leneen la Birame mm-hmm. mën naa débattre mais il est pas orateur wax ni mën na laa bañ a euh, kii kooku da ngay mën a am conseil sooy jóg di dem ci korité yoral discours korité sooy dem làmb yoral discours làmb sooy dem ca sëriñ ba yoral discours boobu. lu mu mënti doon. lu mu mënti doon la nga xam ne moom ngay doon dafa am ku ñu jox ministre de la culture. Mhm. ministre de la jeunesse culture ak sport. Mhm. muy soxna sax. Mhm. muy liggéey bu diis. baat bi it bu xamoon la muy wax mooy da ngay wax ba pare indi solution bi. ah lenn de duñ ko bu ko waxoon sax dana dimbale waale këli mais dimbalewul fi ñu toll nii dafa sonal soxna soosu bu waroon a liggéey vingt pour cent pour am objectif am. tey biram mën na koo yóbbu ci def trente pour cent te du la te mën naa bañ a nga am kii parce que ñi ngay dem. Mm-hmm. suñ la xamee benn bët buñ la xoolee mën naa jafe. Mm-hmm. président Diomaye fi mu toll nii liggéeyam day yomb parce que nit ñëpp teel na leen a wan ci comportement. Mm-hmm. deful sax communiqué wul sax mais euh, communication euh, verbale maanaam li ñuy wax communication gestuelle maanaam la def. maanaam ci posture am rek réglé na lu bari xam nga tey wax naa la ne def na li mu def rek tey communication la ma dab ci wax ko fii ñëpp dégg ci parce que ñëpp xam nañ ne Diomaye fi mu président Diomaye fi mu jëm dafa nar a defal nangam ak nangam kon am na loo xam ne du lees di wax lees di jëf la ñëw nga ci Korité li ngay expliqué nii mm-hmm. muy expliqué nii théâtre daf koy jàngal nit mm-hmm. su ne définition théâtre mm-hmm. mooy la règle des trois P pensée et plastique plastique bi mooy yaram bi cër yéeg yooyu ni mm-hmm. ngay doxale mm-hmm. ni ngay jëfee mm-hmm. moins mu ne parole nga jàng wax donc bu dee ci tubaab moom du rek waxu tubaab ci langue gi la lay xii langue bu mu mënti doon war nga xam culture am pour xam naka nga cay waxee parce que culture ak loo gis ci am même yére bi sax ñu ñëw su woon ñëw du am culture ñëw grand bu bii li muy wax ni man maa ngi ci gën a dugg. dafa mm-hmm. dafa xóotal sax wax ji. parce mm-hmm. pour dégg ko moom il faut nga am culture. Mm-hmm. wolof bi nga xam ne moom lay làkk. parce que moom dafa am préférence am am waxinam. waxinam nag foog nga dégg ko pour mën a xam. saa fan lay uh-huh. waxee. Uh-huh. donc loolu aussi dafa dafa dafa baax di nga wax noonu. lu garaaw la parce que dégg naa ci ñoo xam ne ni. nañ ko tekkee dañ ni dafa juum. te juumul ba muy wax. parce li mu gis. lépp bi ñu ko laajee question bi hmm. li mu gis nekk ci kanamam ak ci xelam donc moom la jukki mais père est parce que moom tamit dafa am problème communication d'habitude hmm. saa yu waxee rek day am ah, ay erreur yu muy def hmm. loolu mooy indi problème communication parce que ba muy wax gis nga po bi nekk ci bëre bi loolu la gisoon ak xaalis bi ci dugal moom loolu rek la gis loolu la gisoon bu amoon culture nag dina mën a gis li ci ginnaaw bu amoon culture làmb te xam li mm-hmm. làmb di indi ci dëkk bi ak ña koy def la mu leen di indil mm-hmm. parce que ña koy def kenn du leen wax ne dañ ñàkk fayda parce que lu bari lañ ci def fii ñoo ngi ciy dundal njaboot non seulement ñoo ngi ci dundal njaboot mm-hmm. mais dañu am fulla am fayda tabax seeni kër te xam di làmb ji day jeex donc ñoo ngi préparer seen avenir kooku ñu dépendre ci état bi pour muy jéem a jukkee ko foofu waaw déjà dañuy wala faj loo xam ne état bee ko waroon def ci ñoom. Mhm. donc làmb am na importance. am na mhm. ba pare nag réew mu dul bëgg. Mhm. en am loo xam ne nii au moins. Euh, fa bokk ci culture am mu mu ci am gis ci boppam. am ci xar baax dama ci yeneen réew yi nga xam ne nii vraiment ñu jukkeeku loon ci wàllu koom. xam nga réew yooyu tey boo leen naree tere bëre te dañuy bëre de mais bëre bëre tubaab bi la ñuy def. waaw bëre tubaab boobu nag. Euh, ci suñu bos bi la dàqee faf a ngay xool mbër moo xam ne nii comme kii rek ki nga xam ne mooy dem di bëri ji seen bëri tubaab yooyu. Mm-hmm. Euh, bombardier ah bombardier. bombardier ak Reug Reug. bombardier am na keneen ki. Reug Reug Reug MMA ñoom ñaar. MMA. Mm-hmm. Mm-hmm. boo koy xool bëri tubaab la. parce que moom tànk yeeg léppay dem. mais loolu boo fa jëlee ngaañ-ngaañ bu rëy mën na la kii mën na la topp sa sa ba ngay màgget. xam nga mbër balaa ngay xam ni. dóorante bi metti na ak fa mu koy yóbbu ji ëllëg mm-hmm. dana dema dema dem ba li muy yëg ci yaramam moom dong moo koy yëg mm-hmm. kon lu leen fay jar na ko mm-hmm. ba pare doo gis xale yoo xam ne nii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir yaakaar ci nga ñëw daan ne leen affaire u làmb yooyu dootul am léegi foofu papa ci foofu wax parce que insécurité non non foofu laay ñëw uh-huh. xam nga bu fekkoon dafa ñëw indi problème ba pare indi solution eh, teg ci du am problème man tey dama jàpp ne tey euh, régime bi mhm. war na fekk làmb ne ne dootut am parce que man ne man gëwuma ko. mais baatere xaalis tamit gis nga bi yi di doog a falu am na jamono dañ ko kenn ñemeetu ko parce que yaa ngi ko doon observé mhm. bi ñu ko commencé def la nit ñi di dem di ci lool muy culture bu bon nag diggante Sénégal ak Mali laa koy gis mhm. te loolu du lu baax li bon la lu ñu dab loo xam ne dèjà ñu daan mayee ñun sax loxo bi du bëgg a yëg bi ak yu demee war nga mën a dimbale nit ki mhm. sa xol sedd ci moom nga may ko te du doon lu ñuy feeñ mais boo ñëwoon ne tey làmb fa MMA toll dama dem ba billet bi yegg foo xam ne sénégalais yi gis ci seen bopp. Mm. làmb ji danga ko développé muy culture. parce que man sàmm sunu mbatit laa jiite pro pro préserver nos valeurs culturelles te pourtant làmb xeeruma ci. mais duma leen yàqal donte nag am naay làmb te bu défendre daree jot dama leen di défendre parce que mm. dañ ma dénk loo xam ne dafa laaj dafa laal culture. Mm-hmm. muy préserver nos valeurs culturelles. Mm-hmm. kon man du ma toog fenn ak lu ma bëgg bëgg biram gis mu wax ba saaraan mm. ma ko ci far ci lu dul dëgg. loolu mu wax am na ci luy dëgg parce que toog muy dox baaxut. jël ay nit di la ne yow déjà loolu sax day yàq làmb ah, da ngay ah. toog ci làmb ji di concentré wu. xaaral ma wax la rek non non xaaral wax li nga ah. xam ne bu ko ci boole woon. nit ñi xam ne lii ko tax a jóg nga toog ci làmb. Mm-hmm. di seetaan nit ñi làmb leen fi indi ñu pare ne monsieur le ministre wala monsieur le maire buy ñëw cinquante personnes lay indaale. même bu fekkee ne dana danañ ko pare ne war naa bu andi woon fukki nit ñu ko teewal képp yenn saa yi sa dugg mais cinquante personnes bu ñëwee fekk nit ñi toogoon VIP jënd seen billet mu seer ba pare. ñuy xalaf xalaf yi wala jëlaat yeneen sees sax di leen ko tegalaat ci ci kanam booba ñu ngay ñi ngay yàq di saboter làmb nga gis ko mu indaalee ministre ba tax benn waykat xaritu waykatam ñëw ci làmb yi nit ñi nit ñi ay waykat andiwu leen fa de mm-hmm. ay waykat da gis waykat bi di ñëw ak lu mu mën a way mën a way ki seetaan si làmb du lijjanti la ngay def loolu yëpp ci li yàq sarmu làmb ci la bokk kon bu ñu fexe woon ba nga xam ne mu ne leen promoteur bi am nga droit jaay mm-hmm. pay per view pay view mm-hmm. bu dee ci Europe euh, wala feneen ak feneen prix bu seer lañ koy jaayee si même Sénégal yi sax yaa ngi dugal crédit wala yu demee noonu forme bu kii la bie bi mën nañu lijjanti parce que billet bi yomb gi muy yomb mooy tax ki nga xam ne agressé rek mooy métier mm. mooy tax mu ñëw fa di yuurukaan di taxawaalu wala yu demee noonu pour wut lu mu sàcc parce que investissement lay nekk ci moom mën naa jël benn 3000 bu mu jënd billet wala mille mm-hmm. ñëw bu mën mënee sàccaale mille wala sàcc 10 000 da koy def kon bu fekkee ne billet bi dañu ñëw def ko d'une manière bi gën a yomb. Mm. na jar 5000 wala dix mille quelque chose comme ça bu la neexee ñi mu intéressé làmb doon yëfu euh, noble ñi mu intéressé ñu dem seetaani ku ko mënta intéressé sponsor yi lañuy ñuy fay mu mën a dem ci tele bi wala nga mën a def une form boo xam da nga fa mën a seetaan pëcc xoob du am. Mhm. nga xam ne mer jël ay seize parce que am na nit ñoo xam ne pour ñu jëli seize mooy ñi nga xam dañ leen a dañoo may politicien bi wala politicien bi nekk ci ci làmb ji euh, kii bi mooy mbër yoo xam ne duñ leen fay. Mm. am na ñoo xam ne yow nan ngay woowee bër bu mag muy bëree cent millions wala cent cinquante millions. Mm, troisième combat wala quatrième combat nga fay ko cinquante mille. ba pare tegal ko ci ne ko dangay jël bloc ñaari bloc yi nga xam ne euh, cent cent billets lay def. da nga ko jaay wala wala wala ñaari bloc cinquante kii. da nga jaay daal cinquante bie wala danga nga jaay cent billets kooku daanaka yow fayoo ko. moom mu ñëw daal dem ci politicien bi ci kii bi kooku koy defaral tiset bu ko defarul comme li muy wax fi Thiès ak mbur wala ji dëkk yu mel noonu ñi nekk Dakar dañoo bëri gars yi dañ leen xëccoo di leen defaral mais foofu duñ leen mën a defaral lu toll parce que da doon politicien bu jub comme comme biram comme ni mu koy waxee doo ko def mu ñu di la xas wala nga may leen ba pare daal di jëlaale ay ticket yow yow politicien bi ticket yooyu ñu jox mbër mi bu mbër mi ñëwee ci yow jox la benn bloc wala ñaari bloc nga jëndal ko cent personnes cent boy yoo xam ne ñi ngi ci koñ bi amuñu xëy mm. ñenn ñi mën nañoo doon ni sàcc wala mën nañoo doon ni agresseur bu ñëwee nga jox la ñooñu bu ñëwee ci làmb ji suñu daanee seen mbër ñoom ñooy jóg du ñu ay amateur bu boobaa mm. dañuy daan nekk ay benn wii bi ñoom ñooy toj stade yi ñoom ñooy génnaat di simol pratique yooyu mën nañ ko ñëw defar mais loolu na ko bàyyee woon sans wu soxna si jéen la te charge bi ñu ko teg maa ngi commencé gis ay sama mbokk ma kilifa taxaw naan daa bari. moom moo xam fan la fan non non mooy soxna nan xadi nan. xam nga euh, ministère de sport bi. Euh, euh, tur bi laay fàtte man nag waruma koo fàtte ndax mooy sama sama ministre. côté côté côté côté culture bi la. Ah, voilà voilà loolu moo loolu moo loolu moo tax. voilà foog ma foog ma kii turam parce que dama ko war di noonu nu mu kooku noonu. giisal nga ko moom te demagul fenn. andil nga ko ñu koy xool waaye tamit mbër yi jóg di tontu bon nañ la tontu mais bu laa laaxaale noonu gi ku tontu biram na yam ci biram biram dañ ko jox pétrole ak gaz muy foo xam ne liñ gën a yaakaar ci Sénégal la mhm. mu waroon caa yam foofu loo xam ne bu te ku ko man la nag maanaam ni mu tëlee wax mhm. ni la amee xam-xam surtout ci liñ koy def yàlla mayewut lépp boo gisee nekkul technicien wu pétrole wala nangam Macky Sall mi doon technicien wu ci wàllu mine bi mu toogee ci lañ ñu gën a rey mais comme agent impôt la xam wàllu fiscalité kon dina mën a dem topp BP mi nga xam ne moom moo jël suñu contrat bi ñuy wax euh, bi mu ki seq ak Frank Timis bu timba seqoon ko ak Cosmos Cosmos retiré wu mhm. Sénégal am ci 10 pour cent kon da nga mën a toogaat ak moom ne ko fu liy jëm jëlaat dabu ji al alalu Sénégal mhm. chantier boo ku ko am wax dëgg yàlla am kuy boot jot la woo war ngaa jombat euh, booti gamb loolu noonu bu ca yemoon bàyyee soxna si lii soxna si moom bu ñëwee andi politique boo xam ne ci làmb ji comme nii ma wax nii làmb dana fay suñu sport bi tamit nawetaan yi soxlaatul nga koy tuddee ay wala tournoi yi wala yu demee noonu parrainage sax yemul ci làmb kese bari bari na ah. moom bu yàggul pare na na euh, basket. waaw xurey si caam la la mii bokk Pastef comme moom. Mm. ak Cheikh Baara Ndiaye man mi sax naroon na maa dem dem nañu foofu Thiès mu am kii buñ fa buñ fa buñ fa def mu mu mu mu mu kiile yow loolu bu ñu la ko tegalee génnee la ne la yow kat pare woon na woon nga bu yàgg kenn du wax ci émotion. Mm-hmm. daa am sama benn xarit dañoo tudd tudd ceebu ganaar bu neex xaw ma lu ñuy wax mu ne du ma wax ci émotion <laughs> maanaam. palaat bi day jeex ba pare. ñu doo ko taxawaat waxaat li ñuy wax. mais euh, nu mu tëddee ataaya ji neex na rek nga teggi fourne bi toog ci toog toog ci taal bi. ah du baax da da ngay lakk de te it nag voilà loolu noonu ñi ko euh, tontu ñëpp may foofu tamit gis nga patriotes yi tamit nañu exigeant dëgg la dañuy gunge ñi ci projet bi bien mm-hmm. sûr mais gunge bi mi ngi gën a am njariñ ci ku déconné ñu am honnêteté te gisoon naa ko nag jamono yi ko biram defee ba bañ yegsi ci kimil bi ñi ko doon dénoncé yëpp mm-hmm. mooy ay waa Pastef man loolu laa bëgg di gis projet bi de wax dëgg yàlla ku leen laal mm-hmm. laal ma mais nag ku ma jàpp ne danga ci juum ah danaa la duut baaraam nag parce que mm. loolu day tax sax ëllëg moom mu gën a xam euh, mm-hmm. gis nga man euh, wax jooju mu mu wax parce que ñëpp ci culture lañ ma xamee mm-hmm. pourtant wékku naa ci culture c'est il est mm-hmm. mais am na domaine yu bari yoo xam ne nii mm. yàlla ma ko sédd ma jot koo jàng ci sama dund xëccuwuma leen mais xam naa na ma ciy demee ak na ma ciy waxee mm-hmm. mën na juum ci wax mii du intention boobu la waxee boo seetee làmb ji. may ma ma sant waa ji Khady jaañ Gueye la moom mi ngi ko joxe ba pare daal koy effacé <laughs> effacé waat <laughs> xam nga suñu internautes yi dañu dañu dañu baax quoi. dañu baax ma macha allah Khady jaañ Gueye la dama ko war a xam mais waa ji mi ngi ma ko jox ba pare. ci mbaaxam. Mhm. xam naa ne day bañ ñu ne waa ji <laughs> comme maa ngi wax ji nangam daal mu faraat ko gis nga nii la ñuy dimbalee. Ah, nit parce que kenn xamul lépp ko mhm. voilà nit ñëpp sax ci mhm. alors ni ma gisee wax ji.